jërë ngeen jëf mbokk internet Sénégal set ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay euh, donc di leen wax rek ni euh, jamono ji ñuy wax ak yéen nag ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy division des investigations criminelles euh, ki nga xamante ne nag moom mooy Lat Diop nga xamante ni dañu ko convoqué woon tey depuis tey ci suba la ñu ko daal di convoqué woon à partir de 10 heures moom Lat Diop nag mu ñëwoon wuy ji gis nañu. gis nañu euh, gis nañu li nga xamante ne euh, moom mooy euh, audition bi ni mu demee depuis ci suba ba tey moom bi nga xamante ne moom mooy Lat Diop daal di nañu koy teewlu donc jamono ji ñuy wax ak yéen nag placé nañu ko li nga xamante ne moom mooy garde à vue moom bi nga xam ne moom mooy ancien DG bu lonage donc dañuy xaaraandi rek ki nga xam ne moom mooy avocat muy maître El Hadj Diouf mu ñëw andi ay leeral ci li nga xamante ne moom mooy euh, décision bi nga xamante ne moom la enquêteurs yi jël par rapport ak li nga xam ne nii moom moo fi xew tey donc avocat wam euh, mu ngi noonu di ñëw muy maître El Hadj donc mu fas ne ñëw rek ci li nga xamante ne moom mooy interpellation bi waaye aussi lan moo waral ki nga xamante ne moom mooy client wam ñu daal di koy placer en garde à vue euh, donc gis ngeen ko noonu. Euh, donc mi ngi noonu di ñëw en tout cas maître a ngi noonu bu ñëwee dina apporter ay leeral après ñu doog a ñëw nag ci li nga xamante ni moom moo waral euh, convocation euh, bi ni mel ni ki tey fii ci division des investigations criminelles maître ñu ngi lay nuyu.